Baye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. Euh, onze bi kalimat lay taamaati mi seri maa xalaqa bi ñu sante yàlla julli ci Baay Laay ak Seydi ñu ngi nuyu euh, internetu wasaare yëpp di ñaanal nag site bi yàlla na bokk ci site yi gën a kawe yéen it yàlla def barke ci yéen ku ko gis xam ko Boy Niang ku ko gis gis fa Boy Niang mais Père balaa maa ñëw ci Boy Niang euh, làmb dafa tojoon làmb tijji euh, ñu gis sénégalais ni ñu namee woon làmb amateur ni namee woon làmb mbëri aussi ni ñu namee woon làmb bërki démb Jax woote na mu fees démb Fallou Ndiaye woote mu fees tey Pape Thialis woote fii war def face to tafaatin euh, Tapha Tine gis nañ démb ni mu mel ak tey ni mu nar a mel avant tout naka ngay wax ci ni làmb tijji waa kontaan rek xam ne làmb amul tànku ginnaaw tànku kanam làmb làmb am na jamono boo xam ni ci place bu tuuti lañ ko daan tëggee def ko ay sàkket tey jii ci ay stade lañ koy tëgg làmb bu njëkk bo ay def la ñu tegoon nit ñi tey jii ñëpp président de la république ak ñëpp jox leen cër boo xam ne joxuñu ko kenn tey da ngay dégg ay face to yoo xam ne méridien président lañ koy defee wala nga dégg ne Amérique lañ koy defee wala France lañ koy defee kon làmb moom actuellement am na ay jéego yu mu def yoo xam ni tey li mu liggéey ci développement réew mi kenn ku ne gis nga ko. kenn ku ne gis nañ ko ñu gis affiche yu neex taxaw na mais euh, saison bi dafa xaw a gàtt. waaw loolu nag li ko indi mooy Covid bi moo ko indi mais nit ñi il ñu gëm dogal lii nit ñi indi woon ko fi yàlla la neex mu am fi te yàlla lay neexaat mu jóge fi. mais ñun li ñu li ñu nga xam ne moo ñu ëppaloon solo rek mooy président dafa mës a wax ni il faut apprendre à vivre avec le virus ñu yàgg di ko kaas ba tey ji ñu libéré ñu kon li ñu war a def mooy promouvoir xale yi fexe ba promoteur yi def seen rôle mbër yi def seen rôle làmb jël gis ci boppam. noo gisee Pape Thialis ni mu àndee affaire yi jëlee ko Dakar andi ko Joal tey gis ne ku ne ñu bari. gis nañ fi ñenn ñi mbapat bee leen fi àndi mais ñenn ñi face tu face Boy Niang ak Tapha ndax ci télé bi rek li leen gis mu décentraliser ko andi leen fii jàkkaarloo pour remplir seen contrat noo gisee loolu ko mais kontaan ci xam nga Pape calis tollu na foo xam ne ak ñun ñun lekkatul ndéegi rek promoteur rek ak ak ak ak mbër ñun partenaire am la ñu actuellement parce que tëgg na suñuy combat te gis nañ ñun ni nga xam ne noonu la ñuy def ci ci combat am dañuy jaay combat dañ koy defal li mu soxla yëpp ci programme am ñun aussi dañuy gis suñu bopp ci ay programme Pape Thialis parce que Pape Thialis dañ ko war a ñaanal ndax ba mu entraîne six combats six grands combats la def loo xam ne boole koog décentralisé yóbbu Thiès yóbbu euh, euh, Fatick tey jii gis nga mi ngi Joal kon kooku c'est une personne boo xam ne dañ ko war a ñaanal yàlla moo am doole tey nag damay j'ai l'habitude de dire que état moo war a jàppale les les bailleurs de la lutte tey jii ñooñu dañuy bi seen bopp mënoon nañoo dem à l'étranger comme ni ko seen moroom di defee mais dañoo ñëw te ay xale lañu di promouvoir euh, euh, euh, seen i li may wax rek mooy président nee na 350 milliards dina ko injecté ci jeunesse bi comme ñun Covid bi rëcc nañu te 1000 milliards la woon yaakaar naa ne suñu quote-part ci 350 milliards yi loolu lu gaaw a luy gaaw a ñëw lay doon parce que président c'est sûr que. deux milliards kese boo ko dugaloon ci làmb làmb ren ak déwén yëpp dana dox te foofu la làmb di jóge am ay tànk di dox pour toujours. Euh, tey euh, nu ngeen nar a andee Boy fii ci Joal muy dëkku làmb di goxu làmb kenn ku ne xam na ne fi mooy dëkku Yaxya Diop Yékini naka ngeen ko na àndee fii tey. waaw xam nga tey prestation lay def te xam nga Boy Niang am na habitude chaque fois bu fekkee day liggéey promoteur. li neex promoteur bi yëpp dana ko def tey jii prestation bi muy def si da koy def pour présentation combat mais pour tamit créer ambiance pour que nit ñëpp xam ni moom nit la koo xam ni c'est l'ambassadeur de la non violence kon moom animation ak yu daal bare nañu ci actuellement pour def ko tey ak tey jii. mais dama daan gis seen combat da am ambiance am euh, maanaam combat bi da ngeen koy jaay mais combat ba léegi dañoo gis boo ñaar dafa xaw a sedd. waaw li ko waral mooy affaire bi dafa démarré gul Pape Thialis ambition yi mu am ci làmb jooju daanaka démarré gul li mu njëkk a def mooy présenter combat bi ba ñëpp xam ne combat bi am na mais li ci des am na ay liggéey yu bari yoo xam ne mu ngi ñëw ci kanam képp koo xam ne bëgg nga làmb te innovation yi mu ci préparé bari na di nga di nga màndi làmb ndax boo booy ñaa du ko bàyyi Tapha Tine du ko bàyyi te moom tamit day créer. day créer ay événement événementiel moom kenn raw ci Pape Thialis parce que moom du du lamb làmb rek lay def am na yeneen yu muy def yu bokkul ak lamb te yim ciy def yëpp day réussir macha allah. mais dama gisoon euh, seen premier combat mën na wax te yéen ak Lac de Guiers euh, maanaam liñ ci doon xaar gisuñu ko ci deuxième combat ngeen am ki xamante mooy Tapha Tine toll na ñu mbëri te kenn ku ne xam na ne combat boo ko jëlee da nga ciy takk rëpp naka ngeen naree waajee boobu combat ak bii defe naa ne test la boo xamante ni bu ngeen ci bu ngeen ci réussir dina leen mën a yóbbu fu bari waaye tamit yàlla tere bu ngeen ci demee neneen tamit dina xaw am nu leen def. mais il faut ñu wax ci combat bee passé combat bee passé xëy na am na ñoo xam ne neexu leen mais kenn ku ne xam na ni Lac de Guiers il fait partie des meilleurs lutteurs du Sénégal parce que képp ku ñuy wax ni mën naa bëre rek bëre na ak yow bu la daanul aussi. Euh, dina bëreeg yow lu tax nit ñi xam ne mbër la parce que ku daan Yaxya Jóob Yékini daan Moustapha Gueye daan euh, euh, Balla Beye daan Papa Sow ñooñu Zos ñooñu rek Issa Pouye xam nga loolu rek doy na palmarès te ñooñu ñu lim ils font partie des meilleurs du Sénégal soo bëreeg moom 15 minutes dominé ko yaay xeex yaa koy attaqué yaa ko yóbbu ardo yaa koy song 15 minutes kan moo ci kan moo ci toog ak moom 15 minutes amul deuxième 15 minutes yi lafa nekk yëpp moom moo ko créé ba loola xew décision bi par recours la ko gagné kon suñu bëriwul woon duñu yegg foofu. nit ñi nag li ñu soxla ak li war a am du benn mais tey soo ma laajee ci combat Tapha Tine koo xam ne yow bëgg nga Balla Balla Gaye bëreeg Lac de lan nga war a moytu ci Tapha ku bëgg Balla Gaye bëreeg Lac de Guiers li mu bëreek moom lan nga war a bañ ci Tapha Tine. yow kay laa koy laaj yow mi ko andi. waaw yow da question bi nga ma posé daf laa jaaxal. looloo tax ma lay wax ni la ku bëgg Balla Gaye bëreeg Lac de Guiers lu mu bëreeg moom lan ngay ragal ci Tapha Tine wala loo ciy bañ combat la nag boo xam ni combat boo am solo la combat boo am importance la combat la boo xam ne ki ñuy bëreel c'est un très grand champion parce que ku xool li mu fi def yëpp war nga xam ni c'est un très grand champion waaye nag làmb du mën a bëree tax ngay daan li ci nag dama koy écho waaw. baax na kontaan jërëjëf.